abonné fii ci Tawfekh Production ngir mën a jot mboolem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne asalaamaaleykum bokki taalibe yi bokki umu islaam seen mbokkum taalibe mu tudd Aliou mbay dëkk fii ci Touba Fall Mboxeex moo leen di nuyu di leen siyaare dëkk bi de mën naa la cee wax lu ñu ma nettali ak li ma dund dëkk bi fondation bi moom a mag te binduñu ko bàyyi fi ba nga ma xëy nii da nga naan boo demee ci paas sangam fekk fa nangam fekk fa nangam waaye mag ña xëy fekke nañ loolu fekk naa fi ñu bari dund naa ñoom lu bari waxtaan nañoo man lu bari yoo xam ni jàpp naa ni waxuma du toxu waaye toxal ko dina jafe lool ba mu jéggi dayoo dëkk bi mboxeex moo amoon sant faal at yi yàgg at yi yàgg murit amagul ba bi murit peeñee ci kàllaam ak wolof nde murit moom mosu fee jóg ba diine lislaam amee rek la amoon mooy ku namm ci yàlla waaye bi Seex naa Seex Ahmadu Bamba feeñee jamono ba am diirub jamono ba yëngal kurusam gi di woote wooteem bi ci lañ wax muridullahi ci la gën a baat boobu gën a siiwe bi loolu amee nag yàlla ak coobareem ki sañ ci dëkk bii dafa amoon ay mag yom fi nekkal yu bokkal lépp sëñ Ablaye Fall mi nga xam ne mooy maami Alaaji Ndaama moo ki sañ ci dëkk bi ñoo bokk ndey ak baay muy sëriñ Waseynu Fall ñu am ñaari jigéen bu tudd soxna Anta Ngoone Fall ak bu tudd soxna aram Paate Fall ñu amit ay doomi baay ndax dañ naa alsaan antama ngoone ni ma faal antama ngoone moo ñeene ca dëkku cosaan ba seen ñaari baaye bokk ndey baay moo tax ñu ne alsaan antama ngoone ak ma faal antama ngoone bi ñu fi nekkee na xaadir ak tijaan rek moo am bi yàlla dogale sëriñ mag bi ne ci jamono nag di yëngal ba addina dagg wuy ko jamono yim nekkee jolof ci diggante 1907 jëm si douze ci la sëriñ bi la ñuy wax ni sëriñ bi daa demoon ndànd di jënd kayit gu mu bind ak kaamil bu mu doon jàng bu mu doon bind te àggul bi mu di wuti kayit gi nag ñëw gis murit yi ca ndànd ñii rang di daw wuti grand ndànd mu ni lu ñu ni maam Cheikh Rafa la fa neen ba mu jëndee ba nag mu dëpp jaar fa nuyoo sëriñ bi gis ko maam Cheikh Rafa gis ko ni ko faali fan mun ko faali saw jënd mu ban dëkk mu ni faal mu ne ko faal lu doon say tànk mun ko dama doon mu manqué kayit ma dégg ni fii am na kayit ma doon ko jënd gis ñu lay siyaar rek ma ñëw doon siyaare mu ni dënn ba mu yàgg man kaa faal bind kaamil baax na waaye boo seetaan saa waaji mu gën fee baax xam nga rek borom xam-xam mun ko kuy sa waay yow mun ko Cheikh naa ma Amadou Bamba mu ni anama mu ni ma nga ceen ca Jolof ah pikir na ko mi nga àndoon ak góor gu ñuy wax maam Alassane Diop Alassane Diop Alhassane Diop bi ñu ñëwee ci kër gi mun ko alsaan loo xam mun ko loo wax rek moom laa wax mu ne ko man damay dem de mu ne ko boo demee doom fi bàyyi ñu dige fajaru tàgguwuñ seen i bokk dem fekk sëñ bi jolof xaw ma ñetti fan la ñu xaw ma ñeent fan la màgg waaye bi eggee daal di rang ba gis sëriñ bi ba nuyoo wax seen yitte dañoo toog ñetti fan yàlla kenn def loowu leen dara ci niñ ko nittilee nee nañ ñu gi sëñ ma sàmba bari na lu ko ku tedd kii woo muy dugg ak génn ñu ngi dem gis ko ne ko noonu dañ fi am ñetti fan te kenn joxaguñu ndigalal def leen nangam kenn teree guñu ni bàyyi leen nangam mun leen bu ma ko gisee dinaa ko wax ba mu delloo ci sëriñ bi mu wax ko ko mun ko gan ñoo ñu fi ñëwoon bëkk daal ba léegi nee ñu kenn joxagu leen ndigal mun ko bu ñu julee taakusaan nga indaale leen ci ni ko mag ñi nettalee ba ñu julee taakusaan ba mu demee sëñ Massamba dee mun ko wool ma gan ñooñu ba ñu leen wooyee ba ñu ñëwee ba ñu nuyoo ba ñu xàmme ko waat mun leen boole naa leen samba mi na leen di jox ndigal di leen tere li ñuy wattandiku loolu mooy njaal bi nag bunt bi ci kër Cheikh Massamba ñu ne fa ne fa ab diir sëriñ bi ñëw njaareem bi mu ñëwee njaareem ñu nekk njaareem ab diir ci nekk mag ñu nettalee yàlla dogal sëriñ bi xëy rek benn bis woolo ko mu ñëw mu ne ko ana sa way juru góoro mu ne baa fay jógee fa laa ko bàyyi mun ko damaa bëgg nga wàcc dellu ci ba mu waajee ba foofu bay génn kër ga di dem mu wooluwaat ko mu ñëw mu ne fa ñuy wax gee ba fa fanaan lu guddi guddi na nga dem ba mu dikkee nga ay mu xaw a guddi xam na fi mu topp yoon wi bi mu agsee ci kër gi dugg gis bi di yëngutu di tàkk tuuti tuuti matt mi mun nuyoo genn góor gu sant mbay génn nuyu ko ku tudd maam Saali Mbay mu ne ko a ah, njool yow guddee nga di mu ne waawoo ana kilifa gi mu ne mi ngi ci biir de mu ne lu xew mu ko daal libbët mu ne nee ko maa ko doon nuyu bi mu fiy jógee seeni fàll tudd bi mu demee sëriñ bee ko ne wasaynu bi mu ñëwee nag ni ko sa doom ja deman ci sëriñ bi moo ñëw di la nuyu mun ko seeni faal saamas mu ne waaw mun nekkoon na ñëw mu ñëw mu ni kooku séeni mu ni waseynu mu ni kooku séeni mu ni waseynu ba mi ñetti yoon nee na mun ko may ma ndox tur woowu di laa doon xaar bi mu ko joxee ndox mun naan diir bu gàtt ci la suñu borom dogal li ko soob te xam nga wolof da wax naan deekat du doxkat du fekkee deeg baayam ñu daal di yëgle tàgge bi nit ñi ku ñëw gis ko ni waaw kii kañ la ñëw mu ne ah, yàlla indi na ma kii kañ la ñëw mu ne yàlla indi na ma biñ ko waajalee toppatoo ko ci gàttal ñetti fan ñu defar ginnaawam mu foobaat dellu ci sëriñ ba njaareem ba mu agsee nag bëgg a wax ak sëriñ bi sëriñ bi ni ko dara jëru maa wax bañal lu xew sa ginnaaw rek a tax ma yebal la ab diir la fa am mu wàcce ko loolu su ko doon à peu près daal naa ci diggante 1913 ak 1914 laa laa koy dugal su ma ko doon à peu waaye xam nga comme fekkewu ma ko te jàkkaarloo mbind mi du ma ko wutal date mu indi erreur mu ne ko damaa bëgg na nga ñëw ñibbi dellu ci seen bokkee boo demee fa nga dëkkal moom bu fa duggaat nanga sanc tuddee ko sama dëkk bu sell bee santale ko saw sant dinaa wax sëñ Massamba mu yët la sëb cir mu ñëw ci guddi jub dëkk bi taalu ak kim àndal toog ci guddi gi nit ñi séen ko ne naar buy jaay coggal la kenn xamagu ko ci fajar nit ñi dañuy daw jëkkante si naar bi bu yoree xar yi sonn mu jaay leen ko bon prix biñ ñëwee gis ko muy moom ñu ne kii nag egg na fa mu jëm ko bàyyi woon say bokk bàyyi sa kër dem toppi sëriñ ñëw di fa naan ci àll moom egg na fa mu jëm ba mu naajee comme sëriñ bi da koo yebal ne ko na nga sañ tuddee ko dëkk bi jox koy màndarga da ko ne daqaara nga fa kadda nga fa looraa nga fa daqaar ga nag wet ga féete gànjol dañ caa dagg bant te jibbiwul boo ko gisee mooy doon pénc mi xelu ndaw lu sawar baa fas taayel tàyyeel baa koo xam lamañoo gaawul yéexul muy jàng suurtu yaasin fa mu tàmbalee ba fa muy jeexale fa lay toll ba mu xoolee daqaar nga fee ci saw mu jige lool mu ni duggi mu bartal genee na nga woon sa kaw mu dem ba foofu mu xaw a sori ba jéggi daye ci liñ ko wax mu ni du foofu mu jaaxale nag buñ dëppee di dox di dox ba tollu fii ki mu àndal ni ko ah sëñ bi lii de daa sew waaye daqaar la ñu xool ko pàq bi féete gaa ñu ñoom meen dañ cee dagg ab aw yat baa la daal te jibbiwul mu xool gis loora gi féete ko saw kàddu gi ne ci fii mu ne ah fii da xamee ma ko fi ñu ma waxoon tàmbali sooratu yaasin mu tàmbali sooratu ba ñu egg mu sëppeel mu ni kon fii la ñu bay sanc ñu di ko jàppale ci néeg ak i sàkket di joxe donga daa sawaroon bind daa fonkan alxuraan moom ne rek daara ji gën di xumb di gën xumb di xumb bay riir taalibe yi ñëw di jébbalu ci sawu gii bari na koo xam moo doon sa sëriñ bi murit moom ci ñi ko fi jëkk a la bokk loolu lu lu ñuy nattable lu wér la dëkk bi taalibe yi dajewul jamono neex ñu soppi ko naa nañ ko tuddee Touba wax naa la li ko li indi tur ci ci làmmiñ ko tedd ki la jóge moom bay di wog bay di waxtaane wu ko maanaam fedd li nañ digal sëriñ bi waxe waa ji baax nag li tax moom du fanaan mën na guddi yàlla waaye du ca fanaan jëmmi jamono bi sëriñ bi làqoo daara ji xaw a mel ni lu gëmm nit ñi xaw a tasaaroo mu mel ni nit ñi dañoo gëlëm fu ne waaye jëm fa waaye yàlla lu mu nar a sàmm am na ñoom fi sàmm ñu sax fi diirub ay at yu néew nit ñi ngëlamte lay dañ ñuy dellusiwaat ba sancaat ba mu nekkaat pénc ci gàttal loolu mën naa la ne mooy fondation bi bi ko nekkaatee nag di dox di dox di dox di dox ba jamono ñëwati loo xam moom laajte ma ko daa koo fekke mu mel ni lu xaw a bi koor bi ñëw mu mel ni lu xaw a tee gëmm ba mu desati kër yu néew waaye li ma wax rek sàmm bu yàlla moom yàlla rek ko mu xam ci lépp bu tudd alaaji Modou ma Fall ñu naa ko Ndaama di doomi Baye Alsaan Fall ci Ndakaaru ñëw ci dëkk bi ni daa bëgg a toppatoo fi maamam tëdd yeesalaat ko ndax moom maamam bokk ndey ak baay te maamam wirdu xaadir la yoroon te nekkatul jamono kii sëñ ci wàllu deman te fekkeetul jamono bi mu bëggee yeesalaat sëñ bi nag tàmbali ci mag ñi léemul ko mu laxasaa yi ne ci laxasaa yi ne ci bu faree déem indi bu faree bant indi loolu dëkkul suma ma juumul ci 83 ba 84 laxasaayam googu ba jant tey jii mën naa leen tële moo tax mu tegg ci tànk boppam tànk boppam waaw réalisation yi nee naa la ci 83 bi nga xamee ni dëkk bi daa mel ni lu gëmaat te yàlla ak sëñ Tuubaa lu mu samp du naay laala ne ci lépp sëtam feeñ nag ñëw laxasaayu tàmbali lotissé dindi pénc indi mbedd fi sëriñ bi ne mu daal di koy natt ñu fondation ko mu teg ci néegub yàlla bi nga xay moom sëñ Massamba ko soñ ñoon sëñ Ousseyn ne ko nañ ko taxawal jullit fu mu dëkk day am jàkk sëñ Massamba ne kon jullit fu mu dëkk day am jàkk ci genn ngoon lañ ko def jàkkay xat loolu bi mu ñëwee moom mu yeesal ko fekk na mag ñi amoon yéene ba sumb ko waaye yéene ji rek a fi ak juróom-ñaari sàkku ciment yi ñu moon bi loolu amee noonu ma la wax mu fedd la xasaayam gi daal di fondation ab dal fu muy mën di summiku di taxawu liggéey bi muy ñaari néeg li ma la wax 84 la démarré fin décembre 84 la démarré boo ko xoolee ak tey 34 ans 34 ans la wala 35 ans su ma juumul loo fi gis nag loo fi gis nag ci diggante fin 84 ak léegi ci lañu ko taxawal loo fi gis rek. ndax bu dee néegum ñax gisatuma ko yim fi fekkan mu gisatuma fi benn sémb néegi ñax yi mu fekk nag seng yi gisatuma benn ci dëkk bi bu nit di yeewoo kon moo tax man la loo fa gisati 84 fin 84 ak léegi lañ ko lañ ko taxawal mu laxasaay rek ñu ni nit fu nara nar a dëkk ginnaaw am na jàkka am na péeñ war na am fajukaay ci la taxawal poste de santé bi janvier juin 88 lañ ko démarré ministère bi ñuy wax Trestine moo fi indi infirmier d'état bi fi njëkk a ñëw jamonoy Marie Sarr Mbooj ministère la woon moo fi indi sage-femme d'état bi fi njëkk a ñëw courant bi moo ciy dox ko wax bañ di bañ inauguré ko ci le 18 novembre 92 àjjuma le 18 novembre 92 lañ ko inauguré dama Alassane Dialy Ndiaye ak kilifa diine yu bari mu topp toppatoo ba mu am ab jàngukaay bu arab ak bu nasaraan bu nasaraan bi mi ngi fi ñëw ci quatre ndox mi bi muy too ba am ko mu am feer ñu topp too ba am ne ndox ndox mii ñi naan nga xay mel ne dàq ko ci Sénégal ba boo ko mënoo am ñetti ndox yu ko dàq ñu ngi ko naan janvier deux mille xaw ma lépp ndax du ma mag ñu ma mag a ngi fi mënu ma fekkee ndey yëpp mun ma fekk secret yëpp mais man li ma ci xam tamit lu wér euh, lu ma la ci wax faxas du ko dindi xajul ci jotaay yu gàtte nii te am na noo xam bu ma ko ni résumé wax ji day rafle te fekk ci man la rafle waaye du ci defe nii maanaam risime bu gàtt mën na tax mu mel lu rafle fekk raflewul tënk gi ma ko bëgg a tënk mooy sabab bi waaye xam naa ci lu bari moom ndaa moom fi mu tàmbalee du ma ci laajte leen yàlla dimbali ko nag li muy def mu di ko njabootam di womat ñuy ñëw doomam yi kenn juddoo fi de njabootam gi kenn juddoo fi bu leen womatee ba ba dëkk bi mel nii mu mel war nga xam ne bëgg na lu baax yàlla fekk ko ci boo dee ko la xam nga li ma la wax dama la ni njabootu boppam gi kenn ku juddoo ci dëkk bi amul bu leen naxtaanee ba yàlla dogal muy muy def ñuy gis muy booy jàngal nit da ngay da ngay wax muy dégg ngay def muy gis da ngay boole théorie ak pratique moom loolu la boole njabootam di ko xool di ko xool ba xam ni kii fi mu dëgmal ñor na ko ñu fekk si ko ci ba yàlla dogal dëkk mel nii mel fi mu ne nag yàlla dogal na li ko soob mag la sawaratul waaye gone yet yàlla may na leen xolub jéem la seen bàyyi doon jéem baa jéem sax lu ko taw lu ko kawee tax na sama njort gën a rafet tax na sama yaakaar gën a dolliku wax dëgg yàlla eh, bi mu bi mu bi mu amee gàllankoor ak léegi ni gone doxe gisuma lu wàññiku ci li seen baay doon def daa yokk waaye gisuma ko wàññiku foofu laa mën a tënk wax ji. di rafetlu nag euh, kàddu yi ci sëñ Aliou Mbaye wax man damaa ñëwoon toog ci wetam pour mottali ko rek ndaxte xam nañ ni ku doyoon bàyyi ndaama la lépp moo nekkoon ay tànkam nekk làmmiñam te dëkk biit euh, mu jaral ko lu nekk. ndax dafa bàyyi léppam ñibbi si Touba ndax njariñu dëkk bi bu doon boppam rek ba léegi mën naa nekk saw wala mu nekk feneen waaye li ma gis ci moom te tax ma gën koo fonk mooy xam naa ne ku fonk cosaanam la euh, fonk na ko ci fonk bi nga xam ne moom la yàlla gën a bëggoo si muy ci diine ndax tey jii euh, lépp lu jëm ci yoonu diine muy jàkka ji ak euh, luy yokk dëkk bi pour diine ji muy jàngalekaayu xale yi yëpp xam naa ne loxo ma nga ci te loxo bu set la ci duggee moo xam ni nabi sallallahu alayhi wasallam noonu la bëgg mu bëggoon ni li mu ñu joxoon mooy képp ku xam ni eh, mu ngi jëm ci diine nga gis ko mu xaw a doole nga jàpp ca mbagg yee jàppale ko dimbali ko lépp loo xam ne am na eh, ëllëg njariñ lu génn ci ne la wóor ni njariñu àddina bi yëpp la waaye kenn loo ci ëppale moom mii nag loolu laa ci mënoon yokk ci wetam beneen bi eh, alaaji ndaama liñ ko waxal fii mën nañu ne fe nekk fii ba suba di ko wax ñun ñii ay wëllëre lañ ci kër gi eh, wëllëre yu yàgg yoo xam ni kenn tuddatuñu wëllëre ay doom lañu fi lu ñuy def ci dëkk biit eh, ñii mu fi bàyyi muy njabootam ku ci nekk da am loo xam ni moom nga ci yanu mu li nga ci yanu nag mu nekk lu diis loo xam ni parce que Alaaji Ndaama ku ko xam ni bëgg ngaa jàpp ci eh, liggéeyam mooy waroo sonn waroo dellu ginnaaw waroo toog di xool ndax lii nit war na koo def ñun ñëpp sunu xalaat moo nekk tey ku ci ne loo xool lu war a yokk ci dëkk bi rek war nga koo def waru ñu xool di tàggu Moodu wala ñuy tàggu Dan wala ñuy tàggu keneen parce que ñun ñëpp buñ sañoon te eh, Touba Fall tey jii jëm ca kanam te yàlla dina ko def it incha allah rabbi ndax cosaanu Touba Fall dafa rëy bari na dëkk yu bëree bari yoo xam tey ñu ngi koy tudd tey rajo bi su neexoon Touba Fall tey ñu tudd leen fopp foofu waaye ñoom dañoo dañoo yeewu loolu ñoom dañoo yeewoo di euh, liggéey rek te topp ci ndigalu sëñ bi li fi sëñ bi tegoon fexe di ko suuxan muy gën a jëm kanam ba tey jii euh, doom yi macha allah def nañu lépp muy daan euh, mi nga xam ne mooy xalif di seen lépp nekk seen mag di taawu góor gi ñoom Modou ak njaboot gi yëpp boo ko limee sax dafay kii waaye tey jii nag am ñoo xam ne ñoo takk seen digg mooy euh, sët yi takk seen ndigg fas yéene jaar fi seen maam jaaroon man mii tey jii dama leen ci sant di leen ñaanal nag seen mës euh, mébét bi yàlla mottali ko tey incha allah am nañ ci yaakaar ndax gisuñu fi xale bi bu jógee ci dëkk bi nekk saw la nekk feneen ñuy dégg ca safaan ba ñoom ñëpp ñu ngi université ñii ñu ngi ci liggéey bi waaye euh, delloo ñu jël Touba Fall fàtte ko dañ koo jiital ba tey jii daayira bi ñu sos nii xëy na cosaanu daayira bi dinaa bàyyi ñoom ñu wax ko sëñ Basiru euh, mi nga xam ne sunu jarbaat la euh, di sëtu góor gi te nekk koo xam ni it dafa takk ndigam bu ko neexoon mu toog fële ñun ñi ñëpp ñëw toog naa ko sëñ Bas loo solo ñu daw defi ko waaye wonewu ko ndax dafa jël fi maamam jaaroon rek maamam tey ji ab seex la tey seex yi ñu tuuree ci dëkk bi yëpp tey bu neexoon tey seex bu ñu tudd tudd ci alaaji ndaama waaye doo ko gis sax moom daal di def jaar ci ginnaaw def la war def dem yoonam bëggu sax kenn du feeñ euh, léegi nag xale yi loolu lañ jël te euh, jëwriñ moom dafa mat jëwriñ macha allah nañ ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko euh, lii nga xam ni moom la ñu nekk nii yàlla dugal ci loxoom am nañ ci yaakaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbokk jullit ñi ak mbokk taaliba yëpp di nuyu suñ kilifa yi ñu toogal di rafetlu jataay bi bu baax kàddu yi am na solo lool waaw sëñ Aliou mbay euh, wax nañu taarixu dëkk bi te ñun amuñ dara lu Touba Fall wax dëgg yàlla muy ñun waa daaray Kanzul Moxtadin ak euh, nuru Nuuru nii bu Touba Fall Mbuxeex waaw ñoo ngi ñaan yàlla nag boole gi ñu suñ borom boole ñu am ci ndam daraje Seexul Xadim wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu doon ay jàmbaar lool ndax euh, nangul nañu liggéey bi ànd kook ñun te lépp dal rafet na wax dëgg yàlla te it euh, lu baax rek moo tax ñu koy def te ñu ngi si gis ndam ñu ngi si gis yokkute kon nag lenn rek la def mooy yokk passif bi gën a jàpp góor góorlu ci bu baax te xam ni bu fekkee moom nit moom damaa jàpp ni boo jógee nga def lu baax suñ borom moo lay moo la moo la ciy dimbali may la ci ndam te gis nañ ni ko loolu ñoo ngi koy am kon nañ gën a góorgóorlu rek xam naa nag comme gars yi wax nañ kàddu yëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy sant rek wax dëgg yàlla dañuy sant rek waaye daal kontaan nañ loolu wax dëgg yàlla kontaan nañ tamit ci yéen gis nañ seen taxawaay bu baax gis nañ it ni ngeen ñuy jàppale bu baax a baax a baax àdduna moom lii rek la lii rek la gis euh, boo amee ay waajur yu baax moom da ngay da ngay da ngay a roy ci loolu rek waaw waaye nag ndegam teg nañ suñ tànk ñoo ngi sàkku yéen ngeen ñaanal ñu bu baax ñu ñu ñu sax si ba ilaa yawmi diini incha allahu rabbi kontaan nañ trop waaw yal na yal na yàlla suñu boroom nangul suñu gàmm nangul ñu nangul ñu suñu lépp barki seexul xadim gars moo xam naa wax nañ kàddu yëpp moom wax dëgg yàlla dañuy mottali rek